maaleykum salaam chef ñu ngi leen nuyu. maa leen di fay. waaw chef dañoo dañoo dañuy dañoo gis sa vidéo muy circulé. Mhm. ñu yow nervi na. waaw est ce que vidéo boobu yow mën nga ñu indi ay ay ay lan moo tax mu xew mën nga ginnaaw bu ma sant yàlla ba nekk fii di koo ko nettali ko maa ngi sant yàlla bu wax mais vidéo bi man la quoi man la man la mais bon nu mu demee sama benn copin moom ma woo ne daa am ay papiers yu mu war a te moom jàngul léegi comme man maa ko gën jàng mu ne ma pour ma ñëw liiral ko après pour pour mu signé quoi boobu dama doon waaj seetaan match match Manchester City ak United final bi mais bu match bi commencé gul mu ne ma day jël taxi aller retour dañuy dem fat fat ñëwaat ma ne ko d'accord le temps. le temps match bi di commencer dina fekk ma ñibbisi ñu dem ñu dem Mermoz léegi bi ñu demee ñu toog tu tuuti fekk naa fa ay nit nag fekk naa fa ay nit ñu ngand waaw ay genre mbër quoi mais ba ma leen gisee rek sama xel dafa ñaaw quoi parce que mooy loolu am naa xel te damay xalaat je suis pas aussi léegi nag ma toog ñu com commencé di waxtaan mooy loolu man ak moom ak yeneen ñaari copain yoo xam ne ñoo dëkk fii nii après noonu ñuy waxtaan ba benn instant ma oo benn copain bi quoi ma ne ko fii man sama xel dalul fii dara copain bi ne ma loolu sax laa la bëggoon wax ma ne ko d'accord ma ne ko dama bëgg a ñibbi quoi mais copain bi laa xamul lu ma koy def parce que daf ma ne daf may signaloo mais bon xaar ma xaar rek xaar ñu xaar rek ba ci kanam après lu ci mënte am rek après ñun ñu ñibbi léegi noonu lañ toogee foofu noonu. benn grand ñëw benn grand bu tudd Canta moo moo ëpp copain bi pour mu signer pour mu signer pour mu signer ko Canta après ci la ma ne sax Canta yaraax la dëkk mais man Canta xaw ma ko c'était la première fois ma koy gis. ñu ñu toogee noonu ñu toog ba ay 16 heures après gars ci la ñu ne waa kaale ñu dem ko léegi ci lañ yéeg ci ay oto ay L200 yu weex ci lañ ci yéeg man comprendre ma sax j'étais pas à mais am na beneen copain bu ma ci gisoon bi nga xamante ne miinante wuñu quoi mais xamante ne te kooku xamuma ko dara lu caaxaan yu ñàkk fayda ci laa ci laa ne waaye nañ dem après ñu dem ñu dem ba HLM ma gis foofu tàkk-tàkk bu métti après ma tiit parce que xaw ma loolu quoi instant bu maa ngi woon ci beneen beneen monde ci laa tiit après oto bi wàcc taxaw ma wàcc di ñibbi maa ngi ñibbi sax di dugg ci biir dëkk bi te xaw ma exactement fan laa dem fan laay dem quoi parce que man miinuma HLM léegi bi may dem copain boobu noonu woo ma pour signature bi ak beneen copain ñun ñetti ñoo ànd quoi ñoom ñuy waaxu après mën na leen yéen lan la doo leen dal ñu dox ndànk ñu ñibbi léegi nag ba ñuy dem copain bu mu waxoon waxu signature bi moom moo jiitu ay yeneen booy topp suñu ginnaaw dañuy wax ay waxu nervi quoi man sax taxaw naa yenn booy ne ma noo demal yow mooy loolu demal mais beneen copain bi nekk ci ginnaaw moo doon explique booy ma taxaw retourné pour leeralal booy quoi mais après ci la benn gain ne noo kii gis naa ko mu wàcc ci oto bi nervi la ma koy expliqué benn booy ut kii xottu butéel jubal sama kaw quoi après ci laa gis benn kër bu tijjeeku après ci laa ci laa duggee ci kër gi waa kër gi nag dalal nañ ma waxtaan ak man ma tijji sama laaj ma sama kóol ma tijji ko jox leen ko ñu vérifier après gisuñu dara lu louche daal après ci lañ ma tëj foofu noonu expliqué mais waa koñ bi ñëw ne booy bi day génn parce que nervi la waa gaale bi ne leen non kii du nervi waxtaan nañu ak moom jël nañ téléphone mais waa koñ bi insisté ba waa gaale gi après ils étaient à bout ñu mujj ma génnee quoi ba gars yi xaw ma xaañ sax mais après waa kër gi récupéré waat ma dugal ma ci néeg bi après bi may waaw après après falaat toog ba guddi ñu delawaat ma sama téléphone ma woo sa benn grand taximan mu jël si ma voilà man la demee. léegi si ma ki la yóbbu mooy sa xarit. waaw est-ce sa xarit li mu yóbbu moom wax na la lii moo taxul mu la yóbbu. non waxuma ko de daf ma ne dañ ko war a signé mais moom jàngul léegi xamul lu muy signé. donc balaa ngay signé foog nga lire foog nga liir quoi. signature la. je sais pas signature rek la ma wax. mais comme jàngul tey sama gain la man ak moom dañuy nekk lu bëri. Mm-hmm. voilà moo tax ma ne waa gars xaar ma dem parce que match bi commencé gul. Mm-hmm. parce que instant yii sang woon naa ba mm-hmm. ba match bi rek laa doon xaar. mais match bi commencé gul woon. après ma ne non comme que daf ma soxla. et que ne dafa urgent bàyyi ma dem rek. liiral ko wax ko lu ci nekk après mu signé ma ñibbi si waat. tey tey ñu non lu may def mënu ma ko wax nit mm-hmm. pour dire mm-hmm. damay toog sax sama xol bi di bon mm-hmm. parce que manifestation ba ñu amee le jeudi dama génne 13 heures pour jënd ndékki fekk shop yëpp tëj mujj ma ndékki dama mujj dugg ci néeg bi ci néeg bi laa dugub añ bi fa la ma fekk ba 22 heures laa génnaat le vendredi même chose moo tax samedi bi bi sama gars yi ne man la ñoom ñëpp dañ jaxasoo parce que ñoom xam nañ ne man nekk xaw ma sax politique du ma ci sax débattre bu ñu toogee di ci wax sax dama leen di ne yéen bàyyi leen ñi politiciens dañ leen di nax rek voilà dañuy bëgg ñu fal leen après ñu nekk di def lu leen neex ci dëkk bi moo tax sama gars yi instant dañ sax dañ sax waaru parce que xamewuñ ma yooyu noonu quoi te man su ma xamee sax nitu problème nga dum la fréquenter voilà tey tey nga ne bi nga demee fekk nga fa ñoo xam ne ñu dëkk yaraax la tey léegi ban message ngay jox yaraax surtout ñi nga xam ne bon woo nañ leen wala woo ñu leen. waaw waaw fekk naa fa ay ay waay yaraax ñi nga xam ne miinuma leen ko mais xamante nañ on s'est salué après mooy loolu mm-hmm. mais daal ñu ñu woo ak ñu ñu woowagul yépp mm-hmm. ku la ci woo di la wax benn wax. na la wax lu leer quoi. lu leer avant avant ngay quitter fii. na la wax lu leer nga xam ne boo demee ci li ngay li la tax a jóg quoi. yow boo mënee dem nga dem mais en tout cas daal je préfère ñu toog fii ba ba réew mi dal quoi parce que vu vu l'actualité de la du pays mooy loolu ñu méfier wu daal voilà. ñi nga mhm. mhm. ñooñu bon ñu ngi tooñ quoi ñu ngi tooñ doomu jàmbur benn innocent mais nag benn instant man mën naa leen jégal quoi parce que dëkk bi dafa tàng tamit te xam nga day metti day metti trop pour nga pour nga comprendre tant que nit ki expliqué wul wala xamoo ay ay proche mooy loolu mais man daal maa ngi jégal ñëpp daal parce que àdduna amul solo quoi voilà.